laaj la waaye cliquer pour nga mën a avancer ci benn affaire donc yow boo cliquer moom dafay jël information yu nekk yow sa ordinateur je pense boo boo boo remarqué à chaque fois boo cliquer ci benn cookies pour tijji benn page mun nga ñëwaat ay jours après ngay tijji benn page nga gis publicité boobu parce que yow yaa jëloon cookies bi moom il accède à PC day am ay information dina ko récupérer et puis di propose moom li mu bëgg a kii la lay kii quoi. yooyu noonu man man yooyu souvent dama koy bloqué pop bi dama koy bloqué su may indilee cookies balaa ma ci dugg damay dugg xool paramètres lan la may proposé lan laa ci soxla ma dindi ko loolu laa ci soxla wala ma ko quoi donc euh, dugg ci cookies je sais pas si dina amal importance ñi may wax waa Médina mooy maire bi jaay fondé paa bi jaay kafe est-ce que yooyu ça l'intéresse la la jeunesse peut-être waaw peut-être bu ñu gisatee ay cookies loolu laa ci mën a wax quoi bu ñu gisatee ay cookies bu ñu ko jël rek accepté ko noonu rek juste pour mën a gis li ñu bëgg gis quoi parce que yaa ngi jël say information di ko joxe. xamoo fa la jëm c'est un peu comme Facebook. Facebook ay WhatsApp ay affaire yooyu c'est bien parce que di nga wax ak ay nit di nga gis ay nit di nga ci dugg mais c'est un truc très dangereux bu fekkee da ci nekk def yi fi dof parce que information yi ñu ciy def gis nga Mark Zuckerberg la tudd xaw ma gaan boobu nit ku am compte Facebook information yi ñu ciy dugal. moom moo lay gën a xam yow sa bopp yow ni nga xamee sa bopp moom moo lay gën a xam yow sa bopp xam ma na xamal li nga bëgg wax parce que yaa ngi dugal seen information saa boo xëyee génn def sa xaw ma nu ngi koy wax xaw ma toog toog xaw ma lan luy booy di utiliser waaye naa waaye samay noon xaw ma lan publier yooyu ça s'efface pas yooyu bu demee gaan bi heure bu ko soxlaa da koy jël xam na fu mu nekk donc de là xam na yow fan nga dëkk noo tudd looy liggéey xam na saa boo xëyee la nga def parce que saa boo xëyee yaa ngi ko dugal ci Facebook xam na kan ngay waxal xam na kan mooy say mbokk xam na kan mooy say xarit xam na boo feebaree fooy jëm xam na ban heure ngay sangu ji ban heure ngay taxawaalu ji xam na koy dugal si nekk xam na ko koy génnee parce que yow yaa ko def réseaux sociaux loo fa deful du fa nekk donc loolu bu buñ ko mënee moytu sa c'est bien gis nga vie privée doo am solo nit danga am loo xam ne yow yaa koy moomal sa bopp nekkul loo jël rek nga dugal ko ci téléphone bi ci Facebook bi parce que nit yi dañu mal intentionné quoi ku nekk am na objectif bu la fa andi quoi man damay nekk ci réseaux sociaux yi damay Facebook damay truc mais je fais attention li ma fay def parce que <laughs> mbedd la lu waay neex def lu waay neex jël donc ku fay def def fa jàmm ka foore am ci après après jeex na quoi mais du fu ñuy exposer vie privée non non kenn du ko def.